mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Farba ak Ndigal ba moo ñu wan ginnaaw Ndigal la ñu jàkkaar lool Farba ak Ndigal ak Ndigal eh Farba cokkaas na léegi waaye Ndigal kay xool mais ëpp xaw nañu ëppante de Farba ak Ndigal Ndigal añ na faax na ko Farba Farba ak ndigal eh laay lay la laa Farba ak ndigal Farba mi affaire la de Farba ak ndigal ndigal koy bëgg a imposer doole di ko ëñ Farba raso ràcc Farba ak ndigal non mooy ak ndigal Farba ak ndigal takk na ko lu koy def da koy daan ndànk ndànk ndigal ndànk ndigal la nga ko bëgg a imposer doole day génn abit àtte na wala boog àtte na àtte na waaw ak ndigal abit bi siflewaat na Farba ak Ndigal eh doo ko doomu daanu moo ngay daw moo ngay daw moo ngay daw day daanu moo ngay daw <laughs> eh, Ndigal daan na ko daanu na doole doxul jàmm doole doxul jàmm du ko dóor daw mu daw daaxi Thank you.